waaw aco boobu waxal gaaw naa a doy waar rek du lool rek ndax xam nga ku ko séentu woon bala dem na ngay say bagage waaye ma fi nekkee ba léegi yàgg naa fi ndax naa fi ma 10 ans waaye ndox ma tëddee nag ma woo ne ah, a na dell na na koo na yoo bu yàqu lay am na yoo xam ne dafa nekkoon cuisine bi tooy am na yoo xam ne dama ko tegoon suuf yooyu moom dama ko seppee ci biir ndox mi waaw am na yoo xam ne tamit dama ko tegoon tagar yi nga xam ne dafa xaw a kawe waaye yëpp la ndox mi yëg ndax ndox mi yëgoon na loo xam ne mën na kawe na woon daal ci kaw ndax fii nekk yi nga seen yëpp yëpp a tooy xanaa xale yu góor yi ma dëkkan sama dëkkandoo yi rek kenn ku ne ñëw ñenn ñi di bale ñenn ñi tànk ndox mi dañ koo tànk dañoo tànk ba mu jeex ñu doog a commencé di fopp ak defar place bi waaw waaye lépp nag ñu sante ko suñu borom rek nga xam ne lépp yàlla la rek waaw place moom xam naa li fi nekkoon ay 6 millions 7 millions mu du ko ëpp moom waaye nag xam naa lépp moom yàqut waaye ban na ci yàqu ma doon xayma daal dama naan xaaj moom yàqu na waaw xaaj moom lépp sant yàlla ndax ndox moom xéewal la ndax moom la doon ñaan ndax tool yi soxla woon nañ ko nit soxla woon nañ ko waaye na ñu la ko sunu borom bëgg daal lépp daal dañ koy sant sunu borom rek baax faj ko ñoo ngi nii di nga teg a menace bagage yàqu waaye sant yàlla la rek waaw ndax mënoon na fee gën a mitt daal waaye comme que nii la rek ñoo ngi sant yàlla baax a baax moom bi ma xëyee laa ñëw ànd ak ñoom bay jaaxal ñoo ñu doo nga ci placé ak centre bee yëpp. damaa dégg ñu ne marché bi daa am ndox ma ñëwoon pour di ko xawal si ba ndikkee fekk place bi yëpp ñu di ko nga teg yooyu. ii lool kay bëri woon na torop torop sax waaw démb kay ndox mi moom bari na lool. déedéet ñu de suñ fii moom amuñu benn dégâts matériels xanaa tooyaa bi yooyu rek ndax dafa fekk sama yaay aj bagage yi ci kaw. waaw fekk bagage àgg ci kaw waaw. man sëñ Mbacke Diop. ndox mi bëri na lool de moom mais mais sant yàlla moom mais bëri na trop moom waaw ñu ñëw rek fekk kii fees del moom bu ñu ubbi ñaari place yi fekk mu fees del daa dépassé daa kii ba kii dépassé pay bi rek daa di dugg yàq na fi bagage yu bari mais garaaw. sant waaw dafa fekkoon fii lépp ñu rangé fi ay bagages aussi fee ñu déglu fa dàll yi mooy loolu. bagages yi yóbbu nañ ko waaw yi ah ñun fii de gisuguñ fi kenn xanaa ñu suñ suñ suñ xarit yi ñoo ñëw jàpp lañu fi rek ñu génne bagages yooyu nga ci ndox mi waaw. déet ah gisu ko moo ko demoon. autorité yi ah ñu gën a kii rek gën a liggéey rek affaire yi moom moom comme que bii kii na mu nopp ñu préparé déwén nag yooyu noonu ak ñu nekk ci ndox mi ñu jéem leen a kii rek. waaw waaw ñun de ci lañu ñu bokk euh, ñun fii daanaka taw bi ba léegi maanaam daf ñoo sonal te boo gisee ndox bi nekk fii dafa jóge ci maal ba ak ci jàkka ji yi nii moo ñuy jox ndox te encore fii. dafa mel ni encore fii dafa mel ni encore ñun fii ndox bi daa dugg an place yoo xamante ndox bi da cay dugg nangu place yi carrément te encore ñun suñu ci ginnaaw bii nii li ngay gis ñax yi nekk nii ci ginnaaw am na ñuy wax ne ak ak yow sàng ci biir ndax ñax bi dafa yàgg te bari na te bari na yàgg na fi trop banque bi looloo waa ancien banque CBAO bi nekk fii daanaka ndox bi moo nangu banque bi carrément te nit ñi dañ ci sonn lu ne ngi ci biir ndox mi ñun nag dañoo bëgg dañoo dañoo bëgg ku ñuy jàppale pour ndox bi mën a jóge fii te suñu place yi tamit ñu mën a nekk fii à l'aise ñun saa yu ñun saa yu tawee nii lay mel waaw nii rek lay mel saa yu tawee même su wisee nii rek nii lay mel fii kenn du fi mën a jaar kenn mu su fi ñëw di seet suñu programme bi ak suñu tolof tolof yi ñuy jànkonteel fii waaw léegi nag kon ko yéen ñëw ngeen fii wan ngeen ñu jàppale ci yëf yi ndax ñu mën a joge fii fii am na ay bagages yi bëri dañoo yàqu côté bi ci mbedd bii nii place yi bëri ndox bi da koo nangu non man moom sama place moom ndox bi dugg ci waaye am na place yoo xam ne dend naa ñoo dend ak man ndox bi da koo nangu man yàq bagages yi tooyal bagages yi yëpp te xam nga rek commerce bi essayé ni dafa neexut nga ñëw fekk loolu yëpp tooy te ko doo ko mën a jaay ñoom de seen bagage yi am na ñoo xamante ne génnuñu seen bagage am ñoo xamante dañoo demoon ci gàmmu gi waaye am ñoo xamante ne nag ñëw nañu génne bagage yi ndax bagage yi dañu leen yóbbu ci kër gi di ko wéer am bagage yoo xam ni xawlu ba xam est-ce que dina am loo xamante dinañu ko mën a jaayaat wala loo xamante ne moom dañu ko mën a defaraat pour installé waat ko mais xam nga loolu yëpp daanaka ñàkk am ku ñuy jàppale rek moo ñu moo ñu dal xanaa ñaanti ci autorité yi ñu jàppale ñu ndox bi mën a jóge fii. Mouhamed fii bañ a suñ moteur suñ moteur pompe bi nawet daf ñoo boolu te moom sax daa am nawet am noor ndax euh, chaque jour ndox mi day génn ñu sant saar fii nii ñooy génne seen ndoxu ndab bi muy ñëw fii ñu ne amuñu doole amuñu moyen amuñu dara ñoo dajale suñuy téeméer suñuy mil suñuy lépp def fii suñ masinu pompe bi ndax senegal moom doo attaqué borom doole wala doo su mën a wax ak moom. mënuñoo dem certifié ndax ñu dem nañ fi ba jannatu sax taxul lii sotti moo tax ñu jël seen machine bii nii chaque jour di koy mont muy manque ndox mi muy dem fële sa canal yi la waaw bi moom ay at moom du benn at du ñaari at du ñetti at bu machine bi lakkee dañ jëndaa beneen machine bu ñu ñoo koy defar suñu bopp suñu moyenu bopp suñu lépp waaw waaw ñu sant Saara dañ na ñoom bu ñu fa demee ñoom benn baal la wax mooy ñun suñ kër gi daanu ak kawtali bi am ndox bu leen si gënal ndax ñoom seen ndoxam nab bi moo tax waaw napp bi ñoom lañ dëkkaale après ñu génn seen i tiwo wàcce ko si kawtali bi ñun nag comme fii la ñu am te amuñu feneen te gisuñu leneen luñ jàpp te fii la ñuy génnee suñuy dépasse si la ñuy joxe addee sëñ bi si la ñuy def lépp kon ñun ñu def suñu effort rek ñun tamit jënd suñu machine bopp rek monté ko ci kaw télé mu dem fële ci canal bi muy Sénégal autorité moom bu ñëwee tamit boo leen ko waxee danañ ci def effort lañ wax te duñ gis kenn fii moom fi benn autorité ñun ñoo si ñun ñoo si doole bopp ñoo si autorité bopp. xam nga rek yaa ma gën a xam Sénégal lu fi nekk moom da ngay muñ rek ku jàpp si lu dëgër laal amoo bànqaas boo téye moom da ngay muñ loolu moo fi nekk.